xawak ak euh, Daouda Coulibaly nekk chroniqueur euh, ci euh, seen télé yi xam ne yéen a ngi koy baax a baax teew na fii ci dédicace livre Moustapha Diop bi dañ koy bàyyi mu nuyoog waa Kaddu Jolof ak waa Sangam TV. Hmm. ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci li ngeen ñu tàllal micro bi pour ñu wax suñu xalaat tey ci cérémonie de dédicace livre Moustapha Diop. lan moo waral teewaay bi ak ban année ñu jox si Moustapha. waaw waaw teewaay bi de xam nga teewaayu teewaayu xarit la. ndax euh, man mustapha Diop moo tax ma nekk fii chroniqueur parce que euh, ginnaaw bi mu ma contacté invité ma ñaar wala ñetti yoon ci laa ko ne man de pour euh, sargal Sidi Lamine Niass dinaa liggéeyal Walfadjri mënu ma ko nag chef chaque jour parce que dama nekk ci benn organe de presse mais da ngeen di xool nu mu gën a oyofee ci man rek may ñëw di ko def saa su nekk ñu tànnal ma vendredi pour may ñëw fii di def li nga xam ne di ay chronique euh, Moustapha Diop nag li ma li ma mun jàpp si moom mooy parcours am d'abord parce que ñun ñoo commencé ndoor journalisme maag moom euh, ñi tudd fii si convention des jeunes des jeunes reporters ñun la woon euh, moom mu commencé fi nga xam ne moom moo di populaire léegi nak di yéeg xam nga xam nga parcours loolu loolu tax mu am solo mooy da ngay commencé fu ndaw di yéeg xam nga lam mo bon di jóge ci kaw di dégringolé euh, li ma mun nag joxe ci anecdote nettali ko si moom mooy dama nekkoon si période Covid 19 bañ si nekkee euh, benn jour ma war a ñëw émission GMT ak Dof Diop euh, ma ne leen nag man dama am problème parce que sama oto bi ma yor amul autorisation pour daw te man bëgguma tooj léegi nag loolu su mooy suma problème bëgg naa ñëw si émission 23 heures mais awma nu ma jaar pour ñëw mais dof job ne ma dina fexe ba ñun ñu ñëw jël si la mais bama ma toogee ba ba heure ba jot ñu war ma jël si Moustapha Diop moo ma téléphoné ne ma maa ngi si brioche dooree bu mariste bi ma ne ko mais yow directeur du yow ya war a di ma jël si kañ man ma war a ñëw jël si la mu ne ma noo amul ben problème xam nga loolu humilité la euh, du du émission bi gën a mag dof Diop du émission bi gën a mag mais su mu nee déplacé moom ah directeur am ne ko demal nekkal chauffeur pour sama invité mu nangu ko loolu day wone pas-pas bi mu am ci liggéey bi ak respect bi mu jox euh, personnel fa jël mhm. soo gisee livre bu mu bind euh, lan nga ci ban réaction ngay am ci livre bi. waaw bi xam nga euh, dafa am ay livre yoo xam ne livre yi day retracé ay jaar-jaaram mais ki retracé sa jaar-jaar pour man miy jàngale loolu école la. parce que gis nga ñun am na suñu ay cours yu bëri yoo xam ne bu ñu koy si ci bi kenn du fi nekk dina un plus un égale deux dañuy raconter ay anecdote dañuy wax lii bi ñu koy dund nii lañ ko traité woon lii bi ñu koy dund événement tel bi mu fi ni mu fekkee nii lañ ko defee woon yooyu boo koy def rek mun na mun naa wax ni yow yaa ngi tàggat euh, xale bi yaa ngi tàggat futur journaliste waaye yaa ngi tàggat tamit ki nga xam ne mooy sénégalais. milieu presse bi ni mu demee jamono ji ak politique yooyu lan nga ci wax. waaw mo milieu presse bi na xam nga moom dafa yaqku nak parce que euh ñun mom suñu suñu dafa am ño xam ne dañoo dugg suñu si ñun. Euh, ñu jappé leen ñu ñu mag parce que ñom dañuy génn ci télé dégg tubaab rek ñu jappé leen ay journalistes yu mag té ñom ñoom ñu benn fanu cour xam nga Sénégal. lolu moy dangereux bi da ngay gis ko xamni patron de presse la wala jarno fu beuri ñu jël leen teg leen tay ji do fi lim juroomi nit. te boole woo si te ñoom ñëpp ku si nekk benn fanu école defu ko xam nga loolu ça pose problème loolu amul fenn si benn dëkk nekk grand journaliste mhm. buy wax ci kanamu tous les journalistes ba ba ŋànk métier bi te defoo benn cours non ça c'est grave <laughs> fii rek la am. koy jaajëfal kooku mooy Doudou Coulibaly nekk chroniqueur fii ci Walfadjri tous les vendredis ñu ngi koy jaajëfal euh, di ko remercier bu baax a baax. jërëjëf.